asiru mal abraari hiin asiru mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak Leral TV dal ak jàmm fii ci Touba Mbacké ci ñaareelu ci ñaareelu édition ëmb xibaaru màggal yi nga xamante ne dañ koy doore rek ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaay ay njëlle waaye sax ay téere euh, Serigne Touba ak i tamit si lépp liw xeetoo euh, li nga xamante ne askanu murid soxla na ko ngir rek mën a respecter euh, ki nga xamante ne moom mooy Serigne Touba ñoom ñàkk ba ñu doxantwe ba ci ñoom laaj leen ci seen i liggéey boobule rafetul nañ ko bu baax a baax waaye wax nañu lépp lu jëm ci wàllum njëlle yooyu ak téere yi nan kala nan la jare ak prix yi nga xamante ne yooyu lañ leen di eh, jaay suñu naataango Biram Xari Ndaw moo taataan seeni kaddu ñu teewlu leen waaw xasida yi ñun moom mbindum sëriñ bi la ñuy faral di wecc ko xasida yi sëriñ bi ak alxuraanul karim ak kurus yeeg xeeti takkaay yi maxtum yeeg asmaawu taxlil yooyu la ñuy faral di wecc ko xam naa nag ci màggal gi nag ci lay gën a doxee màggal moom xam nga moom daanaka day dajale mbooloo mu bare bare bare bëri moo tax ñaari te ndax xasida yi dafa bari ay façon li xam li sëñ bi bind dafa bari 7 tonnes 500 euh, ay xasida yi fasantikoo daal ay mafatihul bichri ay nooru daarini ay jaaribatul maraaxib euh, bari na daal mënuñu ko lim daal xasida yi moom mbindum sëriñ bi la alxuraanul karim yi wax yi borom la moom la ñuy ko xanaa à part à yooyu moom xanaa yeneen bagage yi nga xam ne si ni mooy asmaaw taxlil ak xeet yooyu lañ bind def ko ci biir muy kaaraange ak ku ko mën a takk takk sa ndigg soit wala nga wala wala nga wala nga wala nga wala nga def ko wala nga suul ko sa kër euh, suñu borom mën na laa musal ci lépp li lore xëy na mel noonu moom yëpp ay jar li ma limal léegi la la murid di gën a tënku ci gis boog bu mu xaddimaat sindi sefa yi jaawartu mu faatu bi si jaaratu maraax fawsé ni taysir yii murid dañ cee gën a tënku te di ko jàng moo gis boog mooy mu xaddaat mooy ñetti naari góor yi sëñ Tuubaa yi nuuru daare ni mooy mooy leeru ñaari kër yi adduna ak àllaaxira jalutu maraxib ci la gaa yi ci la ci la gaa yi dëgg dëgg di dox moo tax moo tax yooyu yooyu gaa yi di murid yi murid yi di ko di ko di ko gën di durus waaye boo xoolee saani ilaahi bi mu naa jaxaat sëñ tubaa sëñ tubaa tagg bi mu ko tagg bi mu ko mu ko taggee pare dane la laa bi di fuur di fasi waa badar soo ko tegee soo ko tegee ci wàlliyu kamaal boo ko tegee mu wat ko xasida gi fa waxoon na leen te ay bayit la nga am ci al yum ni wal yusur wax xayra ay bayit la moom itam ëpp doole fukki bayit ak ñaar ndax sëñ Tuubaa yi ndawam yëpp xasida di ñu tudd yu ndawam moo gën a ëpp doole yu magam jërëjëf euh, Biram Xarin euh, Daw dinañu des ba léegi ci fii ci Touba Mbacké waaye bii la yoon comme niñ ko baaxoo di def euh, ren gi ci atum 2023 ci màggal tuubaab bi am na sax ay tere yi nga xamante ne euh, comité de gestion bi nga xamante ne mooy yor jumaa bi mu ngi fàttali jullit yi sëriñ bi lan la tere ak euh, màggal bi lan la bëggul ci euh, édition on bile ba tax na ñu doxantu woon ba si biir juma bi ñu fekk fa ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor juma bi ñu wax ñu lan la sëriñ bi tere ak màggal bi lan la bëggul ñu teewlu ñu teewlu bile reportage ci téeméer ak ñaar fukk ak juróomeelu édition bu màggal bu Touba nekk jamono bi nga xamante ne umma islamique bi yépp dina daje ci dëkk bu sell bu Cheikhul Khadim naka noonee du ñàkk am na ay tere yi nga xamante ne bëgguñu julliti di ko fa amal ba tax na ñi ñi taataan seeni kaddu li lañu wax tere yi nga xam ne moom lañ fi tere du yenn tere yoo xam ne dañ koo ber di ko bàyyil kii wala ke mooy tere yi nga xam ne islam moo koy diglee ko tere rek yooyu yore la ñuy sàmmante bërëb bi di ci yenn yi ñu ciy laabiré nit ñi nga xam ne xëy na seenu xër gu ëpp ci nii ñëwee ci bërëb bi dana laaj bu ñu jug duñu ànd ak seen sago sax bu ko defee ñu gindi leen ci tere yi nga xam ne ñu ngi ko fiy tere. waaye nag dëkk bi nan wormaal dëkk bi te sàmmoonte li sëriñ bi bëgg mooy li nga xam ne ni ko fi aaye képp koo xam ne yaa ngi fiy ñëw na ko bàyyi xel naka noonee dafay baax it tamit ñu fàttali jullit yi ana yenn xeetu comportement la ñu nangoot jullit yi di ko fa amal rawatina ci wërndalu jumaa bi. tere nag weesuwut euh, ñu jox war ma bërëb ba nga xam ne képp koo xam ne nii day yor am njaayam mu mu bañ a empêcher ñi nga xam ne dañuy siyaare ki yor am njaayam du agsi ci biir. jumaa ji ki ki nga xam ne dafa col col ko goo xam ne nii tamit laajut war na ci biir barab bi ñu laajutee ko moom mu delluwaat fekkante ne fa mu jóge soriwul mu delluwaat fa dem. waaw ah, tere yi moom mooy tere yi lislaam yi rek lépp lu lislaam bëggul sëñ bi waaw mooy mooy mooy col gu bon ak yi ñuy tere ci yi nga xam ay tux ak ay xeet yooyu. naka noone ci dëkk bii de daanaka politique sëriñ bi tere na ngir ñu ko fay amal ci makkaan bu mu mënta doon. kenn ku ci ne da ca yëngu la fiy waaye bu ñëwee nag buñ ko bàyyi moom mu defee ko ni mu ko bëggee waaye ñun nag ñooy xool naka lañ tëralee ñu wax la ko nga ànd ci sab liggéey rafet même si politiciens yi tamit ñu ci ëpp suñu ñëw dañuy yëglu avant bu ñu yëgloo tamit des na xam lan lañ bëgg su fekkente ne bërëbu politique nag waxuma la jumaa ji mais dëkk bi sax sëñ bi dafay ay politique kon fii moom du politique kaay te duñ ko may kenn loolu duñ ko du lu ñu toloore wala du ñu naan mais may kenn moom Touba Mbacké nekk dëkk bi nga xamante ne moom moo fa yéene dalal ay junni ak ay junni jullit yi nga xamante ne ñu ngi jóge ci ay gox yu fasanti ko ci àdduna wërndal këpp looloo tax ci biile dëkk ñu daal di fa tere bépp jullit bi nga xamante ne mu ngi fay indi lu niroowut ak li yàlla santaane màggal bu màgg bii lee ci euh, dëkk bi di euh, Touba loole nag euh, mënees nañu tamit gis ne mu ngi déroulé bu baax a baax ca marché Ocass bi nekk fii ci gox bi foofe nag commerçant yi dem nañu tamit aussi fekk len ci seen i bërëb liggéeykaay yi ñoom nag lu ñu xam le ni seen liggéey boobu mu ngi dox bu baax a baax waaye tamit kenn ku nekk ci prix ngay jaaye Euh, say produit xamle nga ko bu baax a baax ki nga xamante ne moom mooy Biram Ndaw mi ñu teewlu ci bile reportage. waajtaay liy jëm ci màggal Touba atum 2023 ñu ngi koy yëg bu baax fii ci marché Ocass ci topp ci délégué marché bi di dikkaat ci naka lañuy ñuy waajalee bile événement. waaw marché moom defe na doon na marché boo xam ne jàpp naa ne bu ñu doon war àdduna bi benn marché benn marché la si àdduna bi si àdduna bépp ñu dañuy wax marché Ocass benn marché la si àdduna bi xaj na nag ne marché marché bi war a gën a mel xaj na dañ ciy yëggagut waaye def naa danañ ci yegg ba marché bi mel noo xam tey ku fi ñëw da nga xam ne fii mooy marché Ocass. marché Ocass doon ab bërëb bu mucc ayib ndax li muy dugal ci koom ci diwaanu Touba foo ko natt rek weesu na ko. économie bi li muy dugal li muy dugal benn marché bu ko dugal ci àdduna bi mën naa ni amut. xaj na la ci dese nag mooy nam waragun a mel laa ne la melagun yi waaye suñu meloon dana dina romb dina romb loolu économie bi marché occasion dugal kooku maanaam ñun ñi nga xam ne ñoo ngi fi moom ñoo ngi ci gis suñu bu baax a baax a baax dëkk bi tamit mi ngi ci gis boppam bu baax a baax a baax. bërëbu jaayukaay bi nag fekk nañu fi ay produit yu bëri te wute njëg li itam naka noonu. man maa ngi jaay omo jaay kot omo laa ci marché occasion. waaw prix yi moom xaw naa yokk na loolu wax dëgg yàlla ndax moom dara waaw màggal gi de ni ñu koy waajee moom alhamdulilah xéwal rek kanaa day fexe am bagage rek ndax bisi suñ tubaab bi moom fexe am bagage rek waaye jaay bagage du problème moom waaw bi amee bagage moom incha allah dinañ ko jaay bu baax incha allah day yokk bu baax a baax a ndax fi ne nii pom ñun ñun ñu koy jaay nii ñu koy jëndee vingt cinq mille te vingt et un mille li nga ko doon jëndee sëñ Bamba moom amul tànki ginnaaw tànki kanam rek ci kaw ca kanam ci lu baax di waajal 18 safar rek nag dalal gan ñi daloo leen yii nii boo dikkee rek nu defal la ko ay 2000 francs lañ koy jaayee ki 1500 rek yu sew yi 1000 francs ba ci 500. ay bés des ñu daal di yegg ci magal Touba atub 2023 jaaykat yi nekk di ko waajal bu baax a baax wante itam jëndkat yi. jërëjëf Biram Xarin Ndaw daañu desandi ak yow ñu wax lépp lu jëm ci wàllum commission bi nga xamante ne moom mooy yor marché Ocass euh, bu euh, Touba euh, ci wàllum sécurité bi mu nekk ab poñ bi nga xamante ne am na solo lool waaye tamit si wàllum njënd mi ak njaay mi loole nag ki nga xamante ne moom mooy adjoint délégué bu marché boobule Touba mbay am na waxtaan bi nga xamante ne sekk na ko ak suñu naataango Biram Xarin Ndaw marché ocas am na sécurité ci wàllu sécurité bi nga xam ne si moom la na am na am na sécurité c'est que nag dëkk bi comme ni ma la ko waxee rek ca tàmbali ba laa la koy waxee waat dëkk bi moo demee noo xam ne si maanaam lépp mën mënaguñ koo régler ni ñu ko war a régler mais si wàllu gardiennage li nga xam ne moo fi nekk am nañ gardiennage yoo xam ne ñooy garder marché bi li nga xam ne tamit moo war a lakk-lakk marché yi tamit comme noonu nga ko waxee branchement clandestin moom loolu moom am na fi lu fi am la ndax bari na ñoo xam ne dañuy xaj ci fiilu courant jaarale fii jaarale fii bu fekkoon dañoo defan kii bi mu nekk norme daanaka bari ci yoo xam ne du am ndax lakk yi fi am yëpp parce que lakk yu ci nekk dañu xool-xool naan jàpp nañ bu yàlla defee jàmm si kanam tuuti dana ci bari changement yoo xam ne dina ci am mais ñoo ngi ci saa xëyee ñoo ngi ci loolu pour fexe place bu nekk mën am contrôle boppam nga xam ne tey maanaam tey su problème amoon tey courant ba dana mën a couper mais tey branchement jël place yóbbu fële yóbbu fële yooyu mooy li nga xam ne si moo fi bari mais nag ñoo ngi ci liggéey bi Touba nag liggéey bi dafa doon liggéey boo xam ne si doonul liggéey bu yomb liggéey bu jafe la. marché Ocass am na assainissement bu normal am na ko am na assainissement c'est nag lépp li ma la ko waxoon lépp mën a ko ta sotti mais instant toll nii nga xam ne fi lañ toll nii tey tey jii nii. su tawoon léegi 30 minute 30 minute lu marché bi fees ba 30 minutes bu ñu taalee machine bi ndox mi dem mais loolu nag li ko def mooy am nañu kanaal am nañ yëpp mais nag Touba dafa bari lu fi nekk loo xam ne si munu si ko wax. ay kanaal yoo xam dañ ko fee dañ ko fee sakkoon man mii maako ko maako ko maa bañ sekkar ci ko xam nga loolu loolu tamit bokkul ci loo xam ne si luy doxal luy doxal dëkk bi la su fekkee fukk day defar juróom di yàq defar du mën a am. mais su ñëpp ànd woon di defar defar dina mën a am. ñu descendi ba léegi ci euh, bërëb bi euh, ndax am na benn yoon bi nga xamante ne moo jógee ci grande mosquée bu Touba dem wutali côté euh, garage Madiana dem bu dem ba marché Ocass waaye yoon bii le daanaka yoon bi neexuta jëfandikoo. loole nag euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy chauffeur yi ak commerçant yi ñoom ñoo ko xamle ndax yoon bi le boo xoolee sax euh, ci ndoxu taw bi nii Mm, nakari na jëfandikoo ba tax na ñu bëri ñi nga xamante ne taataan nañu seen i kaddu euh, nañu ngir ñu dimbale leen ci yoon moobee ñu defar ko ngir ñu amal màggal euh, bu mucc ayib ba ñu teewlu bile reportage. fi ci Touba daanaka ngir dem ci biir marché Ocass euh, bu gox bi loole nag nekk jafe-jafe bi ñu nemmeeku ci yoon bi jóge jumaa ji dem ci garage bu Madiana foofee nag gis nañ ci ay jafe-jafe yu bakkaar yi nga xamante ne dara waralu ko lu dul ndox taw bi nga xamante ne wàcc na ci ñi nga xamante ne ñooy jëfandikoo yoon biile moo xam chauffeur si ak ñeneen ñi nga xamante ne dañuy dugg ci marché bi ñaawlu nañu li ni mel. ñoom bala ñooy jóg pour liggéey dañuy bàyyi bi màggal gi jub si ñu doog a ñëw su ko defee handicapé chauffeur dañu xam lu ñuy liggéey. waaw melokaan yoon yi mooy li nga xamante ñooy jàppalewul rek parce que boo xoolee wax dëgg yàlla neexu ba neexumee Touba ci kanam jàmbaar la lu man mi mooy commune rurale bi amul nëbboo ñëpp a ngi koy wax. na méttiwaay boo xam ne daal moom foo ko natt na ko moom na trop wax dëgg yàlla yoon yi naqari na xat na trop yoon yi daal mooy suñu problème ñun chauffeur yi moom wax dëgg yàlla bu yoon yi baaxoon moom dina yomb si si yi dina yomb si ñun aussi. ba tey ci chauffeur yooyu lee ñoom li xamle moo di jamono ji activité yi ñuy def daanaka dafa ralentir bu baax a baax. ah a a ñàkk parce que boo waroon a dem marché marché boo waroon dem Daaru Tanzir nga def ko 30 minutes au plus def une heure de temps wala wala wala lu ko ëpp pour pour pour ñëw pour ñëw marché. ba tax na day dem ba mujj sax pour ñu dugg marché sax dañuy mujj taxaw euh, dañuy mujj arrêté fële ci deux voies yi duñ duñ mën a agsi fii de charrette yi oto yi ak ñi nga xamante ne sax dañuy dox waaye it motocyclette yi kenn ku nekk di xajal sa moroom ngir mu am yoon ba muy aw loolee gannaaw ba ñu gisee situation yoon bi jóge jumaa ji dem ci marché Ocass chauffeur yi ak ñenn ci askan wi di sàkku ngir ñu defaral leen yoon bii lee nataalu bés bi daañu ko jagleel ki nga xamante ne moom moom mooy maam Thierno Birahim Mbacké mu nekk euh, ab guide religieux bi nga xamante ne dafa ràññeeku lool ci askanu Mouride fii ci Sénégal mu nekk tamit aussi euh, loxoy ndeyjoor kii di euh, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké moom nag dafa joué ab rôle bu important euh, ci wàllum tamit aussi yaatal njàngaleem ki nga xamante ne moom mooy Serigne Touba mi nga xamante ne moom moo fondé confrère confrérie Mouride ana moo di Mame Thierno Birahim Mbacké Biram Xari Ndaw moo ñuy xamle jëmm jile Maam Cerno wàcc na defar na diine. maam Thierno Birahim Mbacke mu ngi gane ci àddina atum 1862 ci turuk Ibrahima Fati Mbacke doonoon fi ku ràññeeku lool ci tariixa murit bi fii ci Sénégal doonoon itam rakk bu sës lool ci Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke mi taxawal tey confrérie murit. taxawaay bu am solo la amaloon kii di Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke ndaxte moo nekkoon daanaka loxo càmmoñam ci lépp lu mu daan def ci liggéey jëm ci taarixu murit bile mu ngi ganee si àddina ca diwaanu Poroxaan maam Thierno Birahim Mbacke am na ab rôle bu am solo ci kanam ña nga xamante ne ñoo di ay kolon di nasaraan si daan ndox ci diggante tubaab bi ak Cheikh Ahmadou Bamba mu doon ab taxawaay bu mucc ayib li mu tàmmoon di def itam bokk na ci di fësal 1895 jàpp 1902 mësoon naa janoo ak ay tubaab ku ci mel ni Henri Félix de Lamotte maam Thierno Birahim Mbacké lépp lu mën def na ko ngir défendre lii di confrérie mouride lépp rek ngir bañ tubaab bi gàkkal liggéey bi xaadimul xadim fa seeni woon def ngir gën a dooleel diine gilee doonoon nitu diine bu ràññeeku lool ci tarixa mouride bi itam moom maam Thierno Birahim Mbacké doonoon na fi baykat bu mag a mag daal di nay bay waaraam itam ca Daaru Musti doon ñaareelu capital bu tarixa murid ci atub 1910 gannaaw ba mu dëddoo àddina ci atub 1943 ca Daaru Musti xabrom ba doon na jamono ji bërëb bu jullit ñépp di dem ngir di fa ñaan seeni soxla li mu fi bàyyi nag daanaka kenn fàtteetu ko askan wi yépp ñu ngi ciy jariñu taxawaayam ci wàllu ko murid ak itam ci diin ak islam ñu ngi koy yëg ba tey ci doomam joojule di sëriñ Modou Kara Mbacké mi taxawal ci atub 2004 parti de la vérité pour le développement muy PVD daan sàmm diine gi wante itam lépp luy aada ak cosaan ci réewum Sénégal liggéeyam ci tarixay murid wante itam ci diine ak islam kenn naataableetu ko demoon nañu sax bay wax naan confrérie bii di mouridisme ak état bu Sénégal dafa mel ni ñaari béjjënu nag duñu mës a daje wante itam duñu mës a tàqalikoo jërëjëf Birame Khary Ndao sant nañ la gërëm nañ la bu baax a baax ci nataal maam Thierno Birahim Mbacké boobu bu am solo boobule foofe sax lañu daal di ndarkap jotaay xibaar yi ci ñaareelu édition bu xibaaru màggal yi jox nañu leen dig daje niki ëllëg ci waxtu wii le sax ci makaan bi ngir ñu jukki leen lépp li nga xamante ne lu ñeel wàllum information fii ci Touba Mbacké laata loolu ñu ngi leen di ñaanal guddik jàmm asiru